li nga xamante ne moo di euh, cette cagnotte là. Mm-hmm. qui s'élève maintenant à combien et la clôture c'est dans quelques heures ou c'est déjà fait. effectivement bon euh, encore bonjour maa ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu ñu fi toog. Mm-hmm. tout à l'heure damaa fàtte woon maa ngi jégalu. Mm-hmm. <laughs> bon cagnotte bi euh, euh, tout d'abord je tiens à remercier participants yëpp vraiment parce que j'ai reçu énormément d'appels. déjà avant sax ñuy am autorisation bi parce que faut souligner on a eu l'autorisation tardivement mm -hmm. avant que WAF nous autorise à ouvrir la cagnotte mm -hmm. pratiquement trois jours sont passés oui. mais peut-être suñu ko teeloon ubbi sax dina dépasser montant bi parce que les gens m'appelaient de partout gars dañ ma doon woo mooy woo waawal mm-hmm. donc finalement on a obtenu l'autorisation Et c'est allé très vite, parce que soo xoolee on a ouvert la cagnotte la nuit. Mm -hmm. Et d'habitude n'ouvre jamais une cagnotte la nuit. Je démarre toujours tôt le matin, c'était ma première fois d'ouvrir une cagnotte à 20 heures. Mhm. en quelques heures, on avait pratiquement millions. Actuellement, on est à 15 millions, pratiquement 15 millions 500 et on a près de 4500 mhm. Donc euh, pour moi, c'est un succès. c'est aussi un record mm parce que d'habitude ñun cagnotte euh, yi dañ koy ubbi dans le feu de l'action ok mais duñu xaar parce que des fois soo xaaree actualité bi jàll et tout ça. Mhm. donc ñu bëri dañuy fàtte sax amoon na fi. mais sénégalais yi dañoo insister tellement que finalement il fallait ouvrir cette cagnotte là. Mhm. mën a jàppale Walf. Mhm. parce que Walf soo xoolee commentaires yi commentaires yi benn la. Walf suñu Walf la. Mhm. donc euh, man du man man je représente tous ces gens là. Mmh. qui se sont levés ils ont dit que ñoom ils vont soutenir Walf. parce que ils vont pas ils vont jamais laisser Walf euh, Walf mourir mais c'était aussi une occasion pour nous. Mhm. de rendre hommage à cet ce ce qui est Feu Sidi Lamine parce que c'est un c'est un c'est une légende. Mm -hmm. c'est un patrimoine. Mm -hmm. donc euh, il fallait que ñu def un geste et puis le geste aussi il est très symbolique amaan su ne su nekkoon beneen télé peut-être ça ne va pas se passer comme ça mais comme c'est Walfadjri. Mhm. c'est le peuple sénégalais. Mhm. peuple sénégalais ci boppam ñoom moom Walfadjri. Mhm. ñoo ne on va jamais laisser Walfadjri sombrer. Oui. donc euh, ils se sont levés. et ont donné de leur participation am ñoo xamante ni amaana peut-être seen moyen demul noonu mais 1000 francs 500 gars yi ñu ngi participer ba am 4500 participants. Oui. donc ñu ngi si sant yàlla bu baax di sant sénégalais yi. oui mais ci euh, objectif bi parce que déjà ab organe de presse la. Mhm. wax nga ko taxawaay bu mu doon am yooyu noonu. Mhm. Euh, mais nit ñi faw ñu toucher ko du doigt pourquoi. Euh, Walfadjri lakkle mhm. yow nga ne nga tijji cagnotte pour que nit ñi jàppale leen. lan moo ci nekkoon say non déjà dafa il fallait lancer un message clair parce que euh, man gis naa commentaire yu bëri gars yi doon noonu non c'est une c'est une entreprise c'est un groupe privé il ne fallait pas mais en réalité ce qui se cache derrière c'est aussi une marque de reconnaissance parce que man nekkoon naa fii ci biir kaso bi euh, événement am fii Sénégal man ma nekk ci biir kaso bi di dégg ay ay ay ay tël ay tiir mais télé yëpp ñiy teg làmb ñiy teg musique Walf rek moo fi taxaw pour montrer la réalité que vivent les Sénégalais quand les Sénégalais se sont retrouvés orphelins des médias y avait que Walfadjri pour ne pas dire que bon y avait bon y avait d'autres qui qui essayaient mais vraiment yenn taxawaay Walfadjri moo ko amoon ba pare ça les coûté tellement cher en plus de ça il faut aussi souligner c'est vrai que c'est un groupe privé mu su fekkoon Walfadjri dafa choisiroon peut-être am yenn posture yi amaana sax groupe bi dina gën a am xaalis parce que quand vous choisissez yenn posture et que vous avez les problèmes avec le des problèmes avec le gouvernement mm -hmm. mais kii yu bëri euh, sponsor yu bëri dañuy daw parce que bëgguñu am problème ñoom ak gouvernement bi donc Walf dafa nekkoon ci benn posture de résistance boo xamante ni sénégalais yi gis nañ ko man je vous ai dit tout à l'heure du mm. man sénégalais yi ci seen bopp ñoo ma harcelé pour que ma ubbi cagnotte bi étant donné que ils me font confiance donc man je parle à leur nom je parle au nom de tous ces gens qui ont participé mm. pour que Walf puisse continuer à vivre d'accord yaa euh, yenn zone yoo xamante ne en Europe nee nañu mënuñu woon participer ci cagnotte bi c'était dû à quoi en fait euh, cagnotte bi bi ñu ko ubbee mm. Euh, on a eu bon je sûrement les techniciens sont en train de faire des enquêtes sur ça. Mm -hmm. À un moment donné Sylvie dafa arrêter complètement. Okay. Bon certains avancent que c'est une attaque. Mm -hmm. euh, mais on n'a pas encore la confirmation donc euh, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mm -hmm. Mais à un moment donné le site ne marchait pas. Okay. Donc euh, il euh, y a eu beaucoup de difficultés hein mais bon finalement on a pu rétablir euh, le site et on a continué le travail. Inch'Allah, on va y revenir. Euh, Pape Sané, euh, 10 jours d'arrêt de travail Walfadjri indépendant de notre volonté gis nañu sinistre bi nga xamante ne am nañ fi on a tenu bon par rapport à cette situation on a commencé à travailler avec les moyens du bord tey jii élan de solidarité bi nga xamante ne am na ko sollicitation bi nga xamante ne sénégalais yi def nañ ko am confiance ci Hannibal ne ko ibil cagnotte pour Walfadjri tey jii euh, loolu lan lay gën a wan ci Walfadjri ak lan la ñuy xaar ci li nga xamante ne moom moo di Walfadjri Merci à vous merci encore à Hannibal euh, euh, pour geste bi mu posé euh, c'est vrai que dafa doon un porte bi nga xam ne sénégalais yu bëri ci moom lañ jaar euh, te ni mu ko waxee noonu la amee man bokk naa ci ñi mu njëkk woo je crois que guddi gi wala le lendemain du sinistre ma ne ko fu mu ne nii pour le moment waaye ñu statuer d'abord sur ce qui se passe chez nous balaa ñu laa tontu mais néanmoins sa requête dinaa ko yéegal ci kaw wax na dëgg donc quelque part s'il y eu un retard euh, si ñun du ci moom mais moom tell na effectivement euh, ñëw ci man woo Moustapha ainsi de suite euh, awa mbir mi li muy wane déjà je rends ici un hommage appuyé à ces deux jeunes confrères ah ñii nga xam ne jour boobu ñoo fi nekkoon di fay euh, je l'ai dit tantôt keroog et c'est un témoignage des des des sapeurs-pompiers yi nga xam ne bi ñu egsee dañ ne nuy tete la promptitude des premiers secours mooy ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon nekk jël extincteurs yi jéem a fay ba circonscrire dans un premier temps de sinistre mooy que tey ji peut-être que ci beneen immeuble wala beneen béréb nañ doon defee lii donc je tiens à rendre hommage justement à ce ces jeunes confrères ces techniciens ak sapeurs-pompiers yi effort yi ñu fournir pendant des heures ba finalement circonscrire le sinistre à un niveau mm. tey dix jours après on est là ça prouve quelque part li Issa wax le sphinx renaît de ses cendres euh, c'est également une preuve que Walf slogan boobu ñuy faral di utiliser. Walf vivra Walf vaincra ce n'est pas anodin leneen encore lu muy wone mooy la voix du peuple keroog malgré le danger qu'il y boo xoolee ñii fi taxawoon c'est vrai qu'on me dira que c'est des curieux mais pour la plupart soo laa laajee mais ay jooy nañ la doon tontoo parce que les gens étaient en train de voir ce patrimoine partir en fumée dix jours après on est là élan de solidarité bi ci jour ba sinistre bi la commencé mooy par la présence la venue massive des Sénégalais pour ñëw taxawu premier gest élan de solidarité bi nga xam ne mën nañu ko noter mooy c'est la promptitude du ministre de la communication déplacé wu rapidement ñëw alors que le feu n'était pas encore éteint ça prouve quelque part un que gouvernement bi le président de la République jël nañu un peu enfin je dirais même pas un peu jël nañu en compte l'outil qui est le média Walfari Fadjri hmm. jël en compte les préoccupations des Sénégalais par rapport à Walfadjri et je suis sûr et certain que euh, ce nouveau pouvoir saurait été n'importe quel groupe de presse ils auraient agi de la sorte ah, oui. mais particulièrement Walfadjri Hannibal a fait un peu à camper le décor li tax moom ah ñenn ci sénégalais yi sonn ci euh, loolu je crois que Walf daf ko ji ou bien dafa nekk ci njëlbéenu ci création Walf ba tey jii mooy que lañ fiy def di ko fi wax fii ci Walf defuñu ko pour ñun suñu bopp mais askan bi lañ koy defar defaral moo tax askan wi à chaque fois que c'est de besoin spontanément ñoom ñuy ñëw wane seen bopp élan de solidarité boobu encore une fois awa dañ koy rafetlu ba pare gën a farlu ñun suñu biir mm-hmm. la nga xam ne moom lañ doon def fukk ñu koy def ñaar fukk wala fanweer pour servir les Sénégalais. parce que c'est un contrat ba nga xam ne je crois que tey jii moo tax sànq bi may wax ni que la relève est assurée je le disais pas par hasard c'est-à-dire que tey dafa tëgg ci ndoddu ñoom Issa mii c'est-à-dire ils ont un challenge difficile à relever. Mm-hmm. mooy lii fi nekkoon depuis 40 ans tey ça leur revient il leur revient à eux de faire en sort que. sénégalais yi qui se retrouvent au au sein de Walf qui se retrouvent autour de Walf et que lii ñaanatuñu yàlla mu am mais que les sénégalais fassent sien di groupe Walfadjri mooy maanaam seen moomeel. seen moomeel nag mooy que à chaque moment mu neex wala mu naqari dañuy war a taxaw taxawaay boobu nag nañu jëmmal. Euh, à travers Hannibal Djim ñi am seen dërëm joxe ñi am seen ñaar dërëm joxe ñii mënul woon ñëw taxaw fii ñaan ñu mënul woon ñëw taxaw jooy et tout loolu yëpp nekkoon na justement des images yi nga xam ne euh, je crois qu'on aura un jour la chance techniciens yi génnee ko wanee na que euh, voilà ña nga xam ne toog nañu fii ci kër gi di jooy am na ñi nga xam ne sax demoon nañu sax ci biir safara si sax ba bëgg dugg ne dañuy jàppale alors que vraiment flamme yi Euh, eggoon nañu à un niveau bi nga xam ne euh, c' était extrêmement dangereux awa ah dans un premier temps. Mm. lii laa bëggoon wax euh, sur ce point là. d' ñi nga wax mooy technicien yi nga xamante ne